di leen wax ni bi ngeen xamante ne nii génn nañ ci élection locale yi gis nañu waa coalition benn Bokk Yaakaar ak seen président Macky Sall nekk di agité wu partout ci plateau télévision yi di wax ne ñoom ñoo gagné ñoom ñoo am majorité waaye li nga xam ne nii honorable Déthié Fall wanne na ko fii tey xamal na leen ne Macky Sall lajj na Macky Sall amatul majorité bi nga xam ne nii daf ko fabriqué woon en 2019 ñàkk na ko puisque c'était une majorité fabriquée qui n'était pas légitime au lieu mu def profil ba xam ne lépp lu mu waxoon defu ko te mënu ko def comme ni mu tàmmee ni ñu ni mu ñu ko tàmmeeli depuis mu nekk ci nguur gi mu bëgg sàcc victoire bi nga xamante ne ni suñu lion yi yu football yi ñoom ñoo ko gagné ngir bégal seen askan seen askan yëkkati leen ànd ak ñoom supporter leen ba ñu gagné ko mu bëgg ko jël ne moom moo ko moom. waaye ñu ngi leen di wax ne même ci situation yooyu nga xam ne nii dañuy wax ne dafa war a am une union nationale ñëpp dañu war a bokk nekk benn dekk benn say Macky Sall ci boppam joué wul le ndax parce que. ni mu mel li ñu wax la nature reprend toujours au galop parce que bi ñu demee lu mu bon bon ba muy teeru suñu gaynde yooyu waroon na ci associer activement opposition bi bàyyi leen ñu saafonte ak gaynde yi ànd ak ñoom ñu accueillir gaynde yi waaye deful loolu li ko intéressé woon mooy photo de famille donte ñun xam nañ ne askan wi loolu la bëggoon moo tax def nañ ko dañ ko def ngir askan wi dañ ko def ngir Lions yi waaye defuñ ko ngir Macky Sall ñu jóge ci loolu ñu ne xëy na ah dina xam ne dañu ko tëcc tëcc metti dina bàyyi yi muy def mu ne day inogré stade bee nga xam ne nii moom la ñu def jam ñaajo donte stade bi wax nañ ne bokk na ci stade yi gën a rafet ci Afrique waaye inauguration boobu li ma fàttee wax sànq ci nasaraan mooy inauguration bi mi ngi coûté aux contribuables 178 millions de nos francs CFA 178 millions et pendant ce temps suñu enseignants yi ñu ngi daw ci wetam depuis plus de sept ans pour seen revalorisation de leurs indemnités mu lànk ils préfèrent organiser une bamboula clanique que de satisfaire les enseignants yi nga xamante ni nii ñoom cheville ñooy cheville ouvrière ou fonction publique fragiliser en même temps le système éducatif parce que gis nañ bu baax suñu doom yi ak suñu mag yi mënatuñ jàng parce que enseignants yi nga xam ne nii ñoo leen di jàngal nekkatuñu ci conditions yu correctes mais loolu Macky Sall moo ko bëgg parce que li ko yitteel Macky Sall nekkul suñu intérêt parce que su fekkoon suñu intérêt moo ko yitteel dina toppatoo enseignants yi dina taxaw int taxaw ngir intérêt askan wi waaye li ko yitteel mooy nu mu mën a def ba satisfaire intérêt occidentaux yi mun a nekk intérêt français mun a nekk intérêt turc mun a nekk intérêt chinois mun a nekk intérêt ñeneen mais pas intérêt sénégalais yi nga xam ne ni ñoo ko fal mu foqati seen i mandat sàcc ko en 2000 euh, ci élection yi weesu donc loolu yëpp dafay wane aussi que ni waaye nag sénégalais yi dañoo am fulla lu mu leen wan léegi lu mu leen wan ñu delloo ko ko ndax tàmmul puisque ne xam nga lu nit su lu nekkul sa yitte doo ko farataal comme intérêt sénégalais yi nekkul yitteem farataalu ko dafay bàyyi ba ñu ne ak euh, élection mi ngi ñëw mu jël li nga xam ne nii moom la sénégalais yi yëpp am dem di leen ko delloo temps mieux mi ngi leen koy delloo waaye heure bu ñëwee di leen ko delloo sénégalais yi dañ ko naan andil jël ko à bras ouvert ne nag dinañ la tëcc danañ la sanctionner et loolu la ñu jàng ci élection yi donc une bonne partie de nos de nos concitoyens de nos compatriotes sont conscients d'une chose que Macky joxu leen cër Macky faalewu leen Macky respecté wu leen mag Macky warmaalul leen daf leen considéré comme benn bétail électoral betay électoral boo xam ne nii da ngay bàyyi ba élection ñëw rek pour xontal ko loolu nag dana dakk Yewwi Askan Wi lii ñu posé première acte la législative yi mi ngi ñëw parce que le président Macky Sall ci weer yee ñu génn dafa doon wax ni dafa bëgg a def troisième mandat waaye jamono bii ñuy wax ak yéen xalaatatul troisième mandat mais mi ngi xalaat nu muy def ba toog ci nguur gi ba 2024 parce que danañu ko dàq élection législative yi di ñëw incha allah dana ñu am majorité mu am cohabitation changer président de l'Assemblée nationale imposer ko en premier ministre puisque moom ci constitution bu bees bi mu tëgg premier ministre bi dafay jógee ci majorité bi te incha su ñu nekkee amee majorité danañu ko imposer premier ministre te bu boobaa du ko desil lu jël ay bagage delloo Fatick su fekkee ne mënul dellu France wala feneen